alaykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football TV ñu naa leen bu baax a baax ziar leen gis ngeen ne xibaar yi moo ngi daw temps yi yëpp euh, ñoo ngi wax si fédération sénégalaise de football ñoo ngi wax si Aliou Cissé euh, ñoo ngi wax sax si Habib Beye donc euh, franchement ku nekk moo ngi wax xalaatam que ça soit journaux yi que ça soit site yi man def naa ci ay vidéo xam ngeen tamit yéen a ngi commenté partage yi franchement c' est intéressant lu tax mu intéressant mooy que ñu ñuy war a waxal muy fédération sénégalaise de football muy Aliou Cissé foog ñu dégg sénégalais yi xam sénégalais yi lan lañ bëgg ba tax dama leen poser benn question jamono bi ñoo ngi wax ne Aliou Cissé dañu war a

devenir entraîneur ak nekk sélectionneur c'est deux mondes entraîneur da yor club à chaque fois chaque jour que jëfee da gis joueurs yi da dem sélectionneur donc c'est plus compliqué moo tax chaque fois da gis ne balaa ngaa doon sélectionneur da ngay entraîneur yu dem ba roode ba am benn xam-xam bi comme Didier Deschamps comme ay entraîneurs yu bëri ñu def après ñu dem nekk sélectionneur donc le cas de de de de Aliou Cissé c'est Zirès dafa jógee après ñu andi ko maintenant nag question boobu yéen a ko moom man li ma xalaat dama gis ne benn Habib Beye dama bëgg mu dem kon li li ma yàgg wax rek laay wax mu dem benn Angers par exemple si toutefois mu ne dafay jógee sax c'est clair normal na mooy entraîneur bu Angers donc mën na dem foofu gëna xam métier ah, li entraîneur et pourquoi pas euh, ñëw renforcer suñu commission du Sénégal et bon euh, renforcer nag mooy que Aliou Cissé mooy nekk entraîneur bi moom day ñëw nekk adjoint comme benn euh, Thierry Henry ni mu def bi mu demee fële ne la Belgique donc pourquoi pas solution de toute façon man bu ko defoon tamit dina ma neex vu que voilà ah, man moom tamit dina gën a jàng métier bi maintenant dafa am leneen lu xamante ne dafa am mooy que jamono bi li ñu def suñu élection élection pour que mu war a nekk président fédération sénégal de football jamono ji jamono ji nag ñoo ñuy xamal ne Marie Touré muy kii nekk génération Mansour Fodj dafa dafa nekk candidat pour mën a nekk président euh, fédération sénégalaise de football ndax Madi Touré moo mën a nekk le sauveur du football sénégalais bu le sauveur du football sénégalais man Augustin Senghor ni mu def yëpp mu ñëw rek balayee ko gis naa ne petite catégorie bi quand même avancé na bu baax a baax a baax am na benn souffle bu baax a baax parce que ça soit une chaise léegi da ngay gis ay talent franchement alors que avant boo jëlee 10 ans voire 15 euh, ans si ginnaaw c'était tellement compliqué U23 yi moo ngi fi U20 yi moo ngi fi football day daw euh, sénégalais yi sax da leen di intéressé à chaque fois ñu si naan ay U20 xam donc ça veut dire que suñu football quand même euh, Augustin Senghor ak fédération sénégalaise wala am na lu ci def maintenant nag dem nañu fi coupe du monde dem nañu fi finale coupe d'Afrique année xaalis

am ben terrain bu baax bal bi di daw ñu joué ñu leen neexee Sénégal gi lañ nekk ay sénégalais ay sénégalais ñoo ko yor et pourquoi benn euh, la Dior de Thiès du dox man li ma xalaat dama jàpp ne Génération Foot lii la ay privé la ki nga xamante ne mooy toppatoo gazon bi nekk foofu xam na ne bu deful liggéeyam ni koy dàq alors que benn c'est pas euh, la Dior de Thiès wala les postes public bi la est-ce que entretenir ni ñu ko war a entretenir.

des moyens c'est pas parce c'est pas que arrangé dafa ak non non non il faut que def si des moyens et que boo amee des joueurs de classe mondiale boo boo boo boo dee génne équipe yi xamante ay Eswatini ak équipe yi xamante ne Sénégal moo ñu mën dañuy def benn bloc baax wala dugal ko benn bii di taxaw di xaar si benn stade la Dior de Thiès c'est vraiment compliqué et je pense que ben benn euh, Madi Touré mën na andi benn souffle bu bees gis nañu liggéeyam quand même ay Pape Matar Sarr Ibrahima Niang keneen leneen ñi xamante ñoo ngi dem match je pense que benn liggéey bu am importance la et que dañu soxla euh, beneen souffle quoi c'est pas parce que Augustin Senghor da nga ñuul defal nangam nangam defal li ngay def bëri na ay compétition yu xamante ne dem ay campagne yu xamante ne def nga ko franchement Coupe d'Afrique ñëwagul ba tey war nga mën a may beneen jeune talent moo ne bu ko et donc man gis naa dans l'avenir du football sénégalais bu fekkee si toutefois Malick Sow moo gagné euh, Aliou Cissé si toutefois aussi tam gagné wu deful dara benn Habib Beye a fekk mu roode quand ben deux ans mon toog français c'est pas moi xam que ça soit adjoint wala leneen mu ñëw moom ak tout de nous andi beneen andi beneen souffle si football sénégalais en tout cas man loolu gis et pourquoi pas sax Hervé Renard bëri na ay choix yu mu mën def Omar Daf keneen ak keneen et je pense que Malick tout quand même ham le football local bi xam football Sénégal mais j'ai l'habitude de dire que football ñi yor football ñoo war a yor xam donc man dama gis ne benn génération 2002 ñi que fédération bi yëpp génération 2002 la ñoom nag dañoo war a dem pour mon a yor poste mais xam donc lii laa si xalaat daal yéen nag ci commentaire wax na ma xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur ba TV bye bye.